tey pour ñu booloo tey bu ma tëjoo ci taxaw wax ci Demba Guissé lu rafet bu ko benn site publier beneen site du ko jël bu ma waxoon ci moom lu ñaaw site yëpp jël ko génne toll nañ ci jamono joo xam ñun artistes yi journalistes yi lu ñaaw rek la ñuy génneel te alors ko ñun ñoo yor image Sénégal da ngay dem ci yeneen pays pays de l'Europe de l'Ouest journaliste bu togg day jéem a jaay artiste su réewam pour mu mën a nekk international may ma may ma may ma may ma may ma non da nga posé question bàyyi ma tontu non mais bàyyi ma bàyyi ma bàyyi ma tontu bàyyi ma tontu non non may ma tontu may ma tontu may ma tontu wala ñu bàyyi pe ñu bàyyi question boobu keneen jël parce que je prends mes responsabilités mes engagements lu am dañuy xool li ko indi lu ko suuxat comprendre nga ah? tey image bu rafet ci Sénégal ñun ñëpp war a jël ñu génnee ko ñu fekk kuy def lu bon yaa ngi dégg pas ñu tasaare ko paa ñu yàq ko yaa ngi dégg mais ñu xam ne kii c'est un sénégalais yaa ngi dégg kii sunu sunu frère la tey bu ñu ko defalee buñ bu ñu wanee lii image non seulement du moom la ñu yàq image Sénégal mooy yàq parce que tey mun naa wéet ak journaliste moo wax dara ci dem a gisee mu ne ma xaaral du yàkkamti jaay pour jël dugal ci poosam de daanaka xaaral lii kat rafetul image bi bu ñu ko génnee baaxul ci Sénégal parce que am na yeneen réew yu xool dañ naan damay seetaan euh, benn vidéo démb maa ngi koy wan Paco mi waa ji ne Côte d'Ivoire première pays expec exportateur de xawma ma café cacao ñee kii mais Sénégal premier pays exportateur de mara bu non si mu jékki-jékki ne da ngay toog nga gis ci internet bi ne ñaari mara bu ñu escroquer benn féticheur da ngay toog nga gis ci internet bi ñu ne Sénégal kii def na lii lu ñaaw wala mbokk sénégalais filmé na kii def ko lu ñaaw génnee ko kon tey ñun artistes yi da ngay jékki-jékki toog yëguloo tiniloo ñu ne la ñaar ñi concurrence am na seen diggante pour jaay seen journal mais day am ci ñun de mais ma mais ma man mun naa exprimer wu parce que on est mun nañ nekk fii maag yow bu suba ngay wax ma lay tontu mais sama ku nekk sa bàmmeel nga taxaw su ma dee ak sama bàmmeel dafa am loo xam ne dafa dafa jiitu ci Sénégal ñun ñëpp fii lañ ko fekk muy guerre boobu te journaliste mooy loo xam ni dafa war di defar moom ñun buñ ñu xamee yéen la ñun bu ñu bëggee yéen la ñun buñ ñu nawee rek yéen la billaahi wallaahi animateur journaliste bu Sénégal rafetee ñoom la bu Sénégal ñaawee ñoom la bu Macky baaxee ñoom la bu Macky bonee ñoom la Ablaye Wade keneen ak kenn waxi nopp parce que mu tax yéen a yor communication bi yéen a yor image bi parce tey sànq ba léegi ñu ngi posé benn question est-ce que yëg yëglu nañoo mag ñi déjà foofu bu ñu yoree beneen xel rek wala mag ñi tamit du du ñëpp du ñëpp a am intelligence kii fee lay déggee kii fee lay déggee polémique day am lan moo tax ngeen ñëw yeneen artistes yi ñëwul polémique day am billaahi wallaahi bu ngeen fi nekkoon kenn rek ñëwoon ñu wax li ñuy wax biir na ma ne bu génnee dinañ ko jox yéen ñëpp ngeen dugalaat ko soxlawuloon ñëpp di ñëw kenn rek bu ñëwoon baax na parce que ñun ñëpp on est une famille artistes yi bu fi kenn ñëwee rek baax na parce que ñun ñëpp ñoo bokk benn baat bi problème bi du artiste bi ñëwul du kiy ñëwul du problème bi ñun suñu biir problème bi mooy lan la ñuy jox suñu njaboot ñu lekk mooy sunu problème fi mu ne nii jaruñu fi indi beneen problème wala beneen polomite li fi gën rek mooy rafetal ko ñi ciy jot jot ci parce que ñi ñu war a déglu bu ñu gisee ni ñun suñu biir y a dañ naan dañu regle suñu problème ba pare door a ñëw mais amuñu benn problème on est une famille ñun artistes yi comprendre nga te ci tànk yooyu lañuy nekk di dox pour que lu lépp lu fiy ñaaw ñu rafetal ko du dëgg demba bi ñu bi mu ñëwee gis ngeen jàmm ju ñu am ca sekk gis ngeen jàmm ju ñu am keneen ak keneen jàmm jàmm lañu élage bi mu fi tudd élage Soriba Kayta la tudd ma tudd élage Soriba ku yaatu ñu tuddee ñu suñu màggu pap musique mooy loo xam ne ku nekk da am njaboot kenn amul jot mais bu ñu gisantee on est benn lañu waaw mais encore une fois journaliste yi ma leen ñaan ngir jëmmi Seydina Mouhamed maa ngi koy ñaan ci sama xol image Sénégal la ñu bu ñu fekkee sori sax mu juum nañ ko rafetal demb mu juum nañ ko rafetal parce que du ñun rek de mais am na ñu leen tiim ñoo xam yeneen dëkk yoo xam ne ñu ñu tiim te pour ñu jaay ñu ñun ñu yéen rek ñu mën a jaay voilà loolu la woon.